mu ne baabu man dubaat si salaat li mooy buntu bi jàngale luñ sopp si julli mu ne wayu tahabu dañ sopp nañ li mu kalaf bi li mu kalaf si mu kalaf bi an yatanafala mu naafila qabla zuhri njëkk tusubaar wa baxda a gannaaw tusubaar wa qabla asri ak njëkk tàkkusaan wa baxdal maghrib ak gannaaw timis mu ne liñ sopp si julli moom lay jàngale fii liñ sopp si julli nag mooy ñu sopp si mu kalaf bi sopp nañ si mu kalaf bi mu naafila balaa moo julli tusubaar sopp nañ tamit mu naafila bu julli tusubaar ba pare jul balaa moo julli tamit takkusaan mu naafila te tamit sopp nañ bu jullee timis ba pare tamit mu naafila war te naafila yooyu yëpp bu nekk dafay naafila ñaari rakkan balaa moo julli tusubaar ñaari rakkan lay naafila bu jullee tusubaar ba pare naafila ñaari rakkan balaa moo julli takkusaan naafila ñaari rakkan bu jullee timis ba pare naafila ñaari rakkan mu ne kon loolu moom dañ koo sopp waaye waru ne waysta bu sopp nañ a ziyaadatu dolli fi nafli si naafila bandal mahdi bi gannaaw timis mu ne gannaaw mu jullee timis ba pare ñaari rakkan yu muy naafila noonu ñaar yooyu dañoo sopp mu yokk si liñ si namm nag mooy su mu yokk yokk si mooy mu naafila juróom benn rakan mu ne wa haada loolu nag kulul lépp lay sa nekk waajibin du la war wa innama huwa waaye moom ala istihbaabi nekk na luñ sopp mu ne yokku gi mi yokku si jullee timis ba pare naafila gumi naafila yokku gum si yokku noonu li nga ak naafile yu balaa moo julli tusubaar ak su jullee tusubaar ba pare ak balaa moo julli tàkkusaan ak bu jullee timis ba pare lu muy naafila mu ne loolu noonu nekkul loo xam ne dafa war loolu moom dañ koo sopp rek wa noon naka noonu yustaabu sopp nañ ad duha yor yor naafila yor yor timin moom dañ koo sopp naafila yor yor dañ ko sopp jullee tamit ba pare juróom benn yor yor tamit moom dañ koo sopp waaye naafila yor yor li si gën a bëri nag moom juróom-ñetti rakkaan la waaye naafila yor yor li si gën a néew moom ñaari rakkaan dong la nag naa foofu nag am na njëriñ naafila yor yor yeneen tamit wax na ku ci naafila yor yor nag foofu am na njëriñ ñu fa nekk yeneen tamit kuy naafila ki doomu aadama dina am ñetti téeméeri ak juróom waaye nag su naafila yor yor dañoo war a saraxe su naafila yor yor su boobaa kooku cëram yëpp saraxe nañ kon naafila yor moom njëriñ loolu moom moo fa nekk waaye naafila yor yor moom warut dañ koo sopp rek mu ne kon naafila yor moom dañ koo sopp rek mu ne wa taraawiixu ak naafila weeru koor wa taxiyatul masjid wa taxiyatul masjid ak nuyu jàkka ak naafila weeru koor moom dañ ko sopp ak nuyu jàkka nuyu jàkka mooy sopp nañ nit su duggee si jàkka su duggee si jàkka mu julli ñaari rakkan safan ne wa safin ak safan wa aqal lu gën a néew rakkan ataani mooy ñaari rakkan wal watri ak witar mu ne safaan ak li ci gën a néew moom mooy ñaari rakan wal ak witar rakantum benn rakalan baadu gannaaw loolu wal watru witar ak witar rakantum benn rakan la baadu gannaaw loolu mu ne nuyu jàkka moom ñaari rakan safaan la safaan moom li ci gën a néew ñaari rakan la witar moom li ci gën a néew benn rakan ñaari rakkan bi jàng bëgg nañ nga jàng ci fatiha ak alam nasra beneen rakkan bi nga jàng fatiha ak alam tara mu ne loolu ku koy def am nañu ne bën buy métti du la bën buy métti du dal te aar ne waxuwa moom sunnatun sunna mu akkadatun buñ dëgëral wa qiraatu jàng fi safin ci safaan wal watar ak witar jahran biral la mu ne loolu sunna buñ dëgëral sunnatu mu akkada la naka jàng si safaan ak witar moomu dañ ko wara a biral ne way xaraw dañuy jàng fi safin ci safaan fi rakaati ula si rakan bu njëkk bi fi mil quran si jàng fatiha wa sabisma rabbika ala ak sabisma rabbika ala wa fi saaniyati si rakan bu ñaareel bi su bi ummil xiraan si jàng fatiha wa qul yaa ayyuhal kaafiruun wa qul yaa mu ne safaan bëgg nañ mu jàng si rakkan bu njëkk bi fatiha ak sabisma rakkan bu ñaareel bi mu jàng si fatiha ak qul yaa ayyuhal mu ne fil watri si ak si witar su ummil xiraan si jàng fatiha wa qul huwallaahu ahad lu mel quraan yi si jàng fatiha wa qul wallahu wa qul wallahu ahad wal maawzatayni ak ñaari ñaari musluwaay mooy qul rabbi falaq ak qul rabbi naas rakataani faji ñaari rakan fajar yi fi si faddu waxiila lu gën a néew mi sunan yi ci sunna wa yaqra mu jàng fiha ci moom bi ummi quraan ci jàng fatiha faqat moom doom mu ne witar moom bëgg nañ mu jàng fatiha ak qul wallahu ahad mu jàng tamit fa lii nii qul a'uuzu bi rabbil ak qul a'uuzu bi rabbin mooy ñaari saar yu musloo ñaari rakka fajar yi nag lu ci moom sunna waaye nag lu gën a néew nit jàng ko mooy fatiha kese fatiha kese moo gën a néew su luñ koy jàng kon buntu boobu jeex na wallahu alam yàlla ma ajëfe na baabu mufsidaatu salaati buntu bi ma jàngale yu yàqu julli ne wa tafsidu dana yàq asalaatu julli ne wa tafsidu dana yàq asalaatu julli bi daay ci siree am dan di ko tay aw sahwan wala jamaj wa bi sujudi saawi ak sujudu jamaj li fadilatin ci nganeel wa bi taamudi ziyadati ak tay wa bi taamudi ziyadati rakaatin ak tay dolli rakaa aw sajdatin wala sujud aw naxwi zalika bokk na si yàqu julli mooy reetaan ku tey reetaan kooku julleem yàqu na wala sujootal nganeel ku sujootal nganeel ku bàyyi nganeel ba pare sujootal ko xabla salaam kooku julleem dafay yàqu waaye nag ku fekkee banda salaam dara nekku si mu ne waaye tamit bu fekkee ne dafa bàyyi mooy rakkan wala sujoot wala yu niroog yooyu mooy daal fekkee ne dafa bàyyi farata su boobaa kooku moom julleem dafay yàqu ndaxte farata kenn du ko su jootal mu ne fi salaati si julli wabil akli ak lekk wa shurbi ak naan wabil kalaami ak wax am dan di ko tey illa islaahi salaat li mooy mu yewinal julli mu ne julli bokk na si lu ko yàq ba léegi mooy lekk wala naan wala wax ku tey wax si julli kooku julleem yàqu na mu lekk wala mu naan kooku julleem dafay yàqu waaye nag bu fekkee ne dafa waa loo xam ne dafa yéwénal julli gi mooy loo xam koy defar boobaa kooku bu boobaa moom far fatabtul du yàqam fatab illaa yàq bi kasiiret si julli lu bëri du na yasiiri walis julli moom lu am na yu bëri yu koy lu bëri wax ju bëri daf koy yàqu waaye wax ju tuuti moom yàqu julli kon nit ki suy julli moom dafa war a noppi war a warta wax wala tamit muy jëf-jëf ju bëri tamit si la bokk moom waru kaa def kon loolu moom dafay yàqu julli waaye nag bu fekkee ne wax joo xam ne moom dafay defar julli rek bu fekkee wax joo daa tuuti julli gi baax na yàqu waaye bu fekkee ne wax jooju daa bëri te dafay defar julli gi sax julli gi yàqu ne wabin nafqi ak si wal am dan di ko mu ne wal tamit dafay yàq julli mooy wëlis moom tamit dafay yàq julli kon ji yàqu julli moo nekk moom wabil adasi ak si toj wabil adasi ak si toj wa zikril faitati ak fàttaliku julligu faat wa bil xëyi ak si wëccu nta amadahu namtay na ko bi ziyadati arba'i ak dolli ñeenti rakan sax di jamaj fi rubaiyati si ñeent wa sulaasiyati wa bi ziyadati rakaatin ñaar raka fi suwaniyati si ñaare koo xam daf doon julli bu fekkoon dafay julli tusubaar mu yokk ñeenti rakan su boobaa kooku julli googu yàqu na waaye bu fekkee ne moom timis la doon julli am na ne bu yokkee ñaari bu yokk bu yokkee ñetti rakan julli gi di door yàqu waaye bu fekkee ne dafa yokku ñaar benn rakan rek su boobaa kooku julleem bi yàqu waaye nit buy julli buy saa nit saa julli bu yokkee loo xam ne moo julli gi ñoo mook li mu war a julli ñoo rek boobaa kooku julleem dafay yok ne mu bu doon julli mu yokk ñetti rakan mu julli tisbaar yokk ñetti rakan wala ñeenti rakan wala mu dolli ñaari rakan su boobaa kooku julleem dafay yàqu mu ne mu ne kuy julli julli ñeenti rakan kooku su boobaa bu su yokkee ñeenti rakan rek julli gi dafay yàqu waaye nag kuy julli julli ñetti rakan kooku am na ñu ne bu si dollee ñetti rakkaan julli du yàqu waaye am na ñu ne bu si dollee ñetti rakkaan rek kooku su boobaa julleem dafay yàqu new bi sujudil masbuqi ak sujudu kuñ raw maal imaam yi ànd ak imaam li sax wi ñeel jamaj qabla yan qabla salaam aw ba'd yan wala ba'da salaam in lam yudrik nem at an am maawu maawu ànd ak moom rakkaatan ab rakk mu ne koo xam ne moom dañ koo raw mu ñëw sujjoot ànd ak imam te dafa jamaj mu sujjoot xabla salaam wala ba'da salaam kooku bu fekkee ne amul benn rakan bu mu doon ànd ak boobaa bu fekkee ne amul benn doon sujjoot ànd ak imam su boobaa kooku julli bi dafa yàqu mais wa bi tarki sujjoodi xabli ak bàyyi sujjoot xabla salaam in kaan nem nekk النقص ثلاث سنن سوى سوى ñett sunna waxtaara wala mu yàgg ne naka noonu tamit koo xam ne dafa bàyyi ñett sunna su boobaa kooku julleem dafay yàqu waaye su fekkee ne dafa bàyyi benn sunna su boobaa kooku bu yàqee yàggee la julleem ji yàqu bu yàggee nag mooy comme dafa fekkee ne dafa mooy mu génn jàkk ja wala waxtu wa génn su loolu lay julleem di door yàqu waaye fekkee ne benn dafa bàyyi ñaari sunna dong su kooku julleem du yàqu waaye nag su fekkee ne ñetti sunna la bàyyi jëm kaw dafa ëpp ñaari sunna su boobaa kooku julleem bi yàqu na mu ne wallahu alam yàlla li may jàppam ne kon ñi daal si beneen bunt bi ne baabu sujuudi saawi li may bunt bi jàngale sujuudi jamaj wa sujuudi saawi sujuudi tamaj sujuudi jamaj sajdataane ñaari sujuud la xam ne salaam njëkk inna xasanin waaj na sunnatan sunna mu akkadada muñ dëgëral da tasoo da dana taayil huma ñel leen ñoom ñaar way salli mu salmal min huma si ñoom ñaar way njaada nañ dool na sayara na sujjoot ba'da salaam gën ba'da bi mooy jàngale sujuudu jamaat sujuudu moom ñaari sujjoot la mooy qabla salaam ak ba'da salaam qabla salaam moom nit balaa moo salmal la koy sujjoot bu pare mu taaya sëlmal waaye nag bada salaam moom nit bu sëlmalee ba pare la kay sujjóot mu bu fekkee nit dafa wàññi sunna sunna mu akkara mooy sunna buñ dëgëral boobaa dafay boobaa bu fekkee ne moom daf daf daf koo su boobaa kooku dafay taayawaat bu pare mu sujjóot bu fekkee dafa dolli woon mu sujjóot bada salaam waaye bu fekkee ne nag dafa wàññi woon mu sujjóot salaam kon su yokku xam banda salaam lay su jot ku wàññi su jot salaam waaye na koo xam ne dafa boole yokku ak wàññi yëpp su boobaa kooku xabla salaam lay su jot ndaxte moo ëpp doole banda salaam li annahu ndax moom mu ne waaye naqasa ne wàññi na wasaadu mu na su jot xabla salaam yi lay wax ne mu ne fekkee ne dafa boole dolli ak wàññi su boobaa moom xabla ndax moom yu xallibu mu ngi not jaanu bi nax si wàllum wàññeeku ndaxte moom su boobaa mu ne nag na moytu wàllum wàññi mooy mu muy wàññi dara si julleem loolu na ko moytu waaye nag bu wàññee moom qabla salaam lay sujjoot ala jaani bi ziyaadati si wàllum dolleeku wa saahi jamal fi salaati si jullee ala salaasi aqsaami si ñetti xaaj mu ne jama ci julli mboomu am na ñetti xaaj mais taaratan léeg-léeg yasuuf dana jamañ an naq si fardin si wàññi farata min faraidi salaati si farata julli mu ne léeg-léeg dana jamañ wàññi si farata julli ko bi sujuudi ci sujuudu jamañ mën naa jamañ naa jamañ wàññi si farata julli su boobaa dafay wut nu mu ko mooy sujud ci sujudu jama ji amul lu mu ko jegee sujudu jama ji ndaxte farata moom moom kenn du ko sujootal ne wala budda mënta ñàkk min itiyaan yi ci dikkam bi ci moom wa in lam yaskur nem fàttaliku na ko saalika loo hatta salom yàgg ne kon batala di yàqu na salaatu julleen bu fekkee ne nag dafa ñëw fàttaliwu ko ba salmal bu fekkee ne dafa yàgg su boobaa kooku su julleem bi yàqu na waaye bu fekkee ne yàggul nag daf koy sujjóot mu ne waaye tariwuha dana ko commencé waat ba taaratan léeg-léeg yasu dana jamaj an fadilatin si nganeel min fadaili salaati si nganeeli julli kal xunuuti kam xunuut rabbana walakal hamdu aw takbiratin waxidatin wala benn kabar mu ne léeg-léeg dina jama ci ngëneel si ngëneelu dina jëmaj si ngëneel si ngëneelu julli comme xul mu bàyyi xunut wala rabbana wala ka am wala benn kabar mu ne loolu jamaj la si ngëneel yi kon fekkee ne ngëneel moom si boobaa bu ko muru bu ko sujjootalee qabla salaam bu ko sujjootalee qabla salaam julli bi day yàqu waaye bu ko sujjootalee ba'da si mu ne way tariwaa dana ko commencé waat ne wacce bi zalika ak yu niroog yooyu lu julli wala rabbana wala kax wala benn kabaar niroog yooyu su boobaa kooku moom su jot waru min sayin si dara min zalika si loolu wa mata sajada kañ la su jot li si dara min zalika ngir loolu qabla salaam yi njëkk sëlmal batalat yàqu na salaatu julleem mu ne bu fekkee ne dafa sujoot dafa bàyyi kunuut wala rabbana wal hamd wala benn kabar wala ñuróog yooyu su boobaa kooku sujoot waru waaye bu fekkee ne nag dafa sujoot qabla salaam si si ngëneel bu mu bàyyi noonu daf kaa sujootal qabla salaam mu ne kooku moom su boobaa julleem bi dafay yàqu mu ne waaye tari dana ko commencé waat wa taaratan léeg-léeg yesu dana jamaj an sunnatin ci sunna mi sanooni salaati si sunna julli ka surati comme saar wala ñaari kabar mu ne julli comme mu bàyyi saar wala mu bàyyi jàng fatiha wala mu mu ne mën naa bàyyi sunna si sunna julli comme saar saar bi nga xam ne moom mooy ànd ak fatiha wala ñaari kabar wala ñaari taay wala toogaay wala toogaay taay bi mu ne loolu mën na kaa bàyyi ci sunna yi wa ma asba zalika ak yu niroo loolu fa yasjudu dana sujjóot li zalika ngir yooyu wala yaqut wala yafuutu du faat ak saar bi nga xam ne moom mooy ànd ak fatiha wala ñaari kabar wala ñaari taaya wala toogaayu taaya bi comme yu wala yu niroog yooyu mu ne su boobaa dafay sujoot rek sujoot sujoot bi moom du faat boobaa moom kooku moom baax na salaam lay sujoot waaye bu fekkee ne daf koo fàtte boobaa moom waaye juddu dañu ko sujoot wala zakarawu donte fàttaliku na ko bande sehrin donte gannaaw la mi salaat yi julli mu ne bu fekkee ne dafa moom bu fekkee ne dafa bàyyi saar bi nga xam war a ànd ak fatiha wala ñaari kabaar ñaari taay wala toogaay taay yooyu su boobaa loolu bande salaam la war a sujjot waaye bu fekkee nag koo fàtte su boobaa saa bu ko fàttali ko rek daf koy sujjot ne wala xaddama wala xaddama doonte jiit na ko ak salaam aw ak sujjodu xabla salaam ak jaaw dee na mu ne bu fekkee ne nag dafa yéexu sujjoot bande salaam wala mu yéexu sujjoot ah, dafa njëkk sujjoot xabla salaam mu ne bu fekkee ne dafa sujjoot baada salaam ba pare mu yéex a sujjoot xabla salaam boobaa waaye nag wala tabtul yàqu salaatu julli ga ala masiw ci lu gën a siiw mu ne nag julli googu lu gën a siiw nag mooy julli googu yàqu mu ne man lam yajri nam atum masala lam julloon salaasati ñett aw isnatayni wala ñaari fa innahu naka moom yub nii dana ko tabax ala aqali ci lu gën a néew yub nii dana ko tabax ala aqali ci lu gën a néew wa yaati mu dëkkee bi ma sakk ci limu sikk fii ci moom waaye jur mu si yor bada salaam bada salaam bu fekkee ne moom lum julli woon dafa julli woon ñetti rakan wala ñaari rakan su boobaa moom daf koy boole su boobaa mu ñëwaat si li nga xam ne moom daf juróon sikk sàkka su paree bu mu ñëw mu sujjóot su paree moom mu ñëw mu sujjóot bada salaam mooy gannaaw bu sëlmalee ba pare mu sujjóot mu sujjóot bada salaam wallahu alam yàlla ma aja xam kon nag lii leen leen indi woon si darsu tay bi li si jug ci yàlla li si dem suñu la suñu néew gëstu ak suñu gàtt xam-xam in uridu illa islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa taala wa barakatuhu